sëriñ euh, mbaytan li nga wax xam nga dañ ne yoonu murit euh, maanaam yoon la woo xam ne yoonu liggéey la ndax ku tedd ki lim ñu jàngal mooy jaamu yàlla ak liggéey ba tax na bi Touba ci kanam jugee li ñu njëkk xalaat ndax Touba ci kanam nañu xam ne ni mu déparé ci benn groupe whatsapp rek la déparé boo xam ne dañ fa daan toog rek di waxtaan li na jafe-jafe yi tubaa am ci wàllu ndox mi wàllu éclairage public bi ci wàllu sareet yi ci xeeti jafe-jafe yi am di ci waxtaan di ci waxtaan di ci waxtaan ba bis ñu xam ne kat lii kat vraiment lu sérieux la ñu daje kër sëñ Ndam Atta def ko association association boobu noonu euh, ñu dem ci sëñ Bas mu tuddee ko Nuurul Daarayni ñu xam ne mënuñoo ñàkk kilifa ñu dem ci sëñ Abibu mu sëñ Mamadou Fadilou mu ñëw nekk kilifa gi ba pare indi ci projet bu am solo bi di ñaari million nga murit kenn ku nekk di joxe ñaar téeméer na xam ne buñ ko defee danañ am 2 milliards ci weer wi di 24 milliards ci at bi bu ko defee lépp lu waa tubaa soxla danañ ko mën a defal suñu bopp ci kon tubaa ci kanam ci résumé rek ci noonu la jóge ñu départ liggéey bi mu toll ci ñaari at ak lu topp Euh, ci loolu tamit lañ doon waxtaane ci panel yooyu depuis juin 2016 moom lañ dajale woon ci lañ njëkk a def les sept projets phares buñ ko defee tamit ba dem ba nga xam ne tubaat ci kanam ingénieurs yi yëpp ñëw dugg si ci ay kuréel yu bëri ñu toogaat defaat ci ay lëlu waxtaanaat yi ne ay projet dafa tuuti dañ ko def ay domaine domaine bu nekk ëmb ay projet kon pour ñu dugg ci sept domaines prioritaires yi première domaine bi di infrastructure environnement am dëkk mënut a te amul ay infrastructure amul ay tali amul ay euh, euh, nu mu tuddati addition d'eau éclairage publique euh, aménagement ak tamit wàllu mbalit mi ñu ñu di ko saytu ak tamit li ci wàllu reboisement ay pompe tamit jébbal ko nguur gi ak ñi nga xam ne mooy mairie bi pour que ñu def ko ci forage yooyu pour que ndox mën a am euh, ci tamit toujours ci premier domaine bi li jëm ci wàllu aménagement euh, surtout nag wàllu reboisement ñu gis ne Touba dëkk la boo xam ne euh, tàngoor wi ak mbooye bi bu ak poussière bi tamit li ko mën a kale mooy ñu am ay garab yu baax ci la abdu Fatah Gaye président Touba ci kanam indi benn xalaat muy projet naatal Touba bi mu ko indee tamit collectif ingénieur yi na xam ne ñoo ñoo seen seen xel màcc ci wàllu euh, ci wàllu gàncax ak waa eaux et seen daayira bi xidmatul xadim ak képp koo xam sa xel màcc na rek ci wàllu euh, garab waa Touba ville verte bàyyiwuñ kenn ndax Touba ci kanam depuis bi mu commencé ba léegi tamit noonu lay doxee mooy day fekk lépp loo xam ne lu ñuy def rek day xool ka ko sëriñ bi dénk ci dëkk bi mu ànd ceeg yow euh, dooleel na ci ñu ànd waaye nag du jël xaalis di ko jox kenn dañu ànd ak yow teg projet bi génn xaalis bi génn budget bi ñëpp soytu ko ba lépp mat euh, ci loolu noonu ci lañ lancé euh, opération ki projet Naatal tubaab yi Euh, def mille cocotiers yoo xam ne yu mucc ayib yoo xam ne entre un mètre cinquante deux mètres yoo xam ne dañ ko ñëw jële ko Côte d'Ivoire jëmbat ko fii ci pépinière yi fii ba mu jàpp ñu doog koy ñu jog ñu koy euh, jaay ñu yóbbu ko Touba na xam ne mille cocotiers yi dañ ko def ci trois kilomètres booy dugg Mbacké ba ci gaaraasu Dakar bi ndax dañ ko suñu yéene moo doon dem ba jumaa ja waaye nag ngeen xam ne diggante garage Dakar ba jumaa ja ak tamit ni ñu defare foofu euh, amuñu woon espace pour mën ko fa def moo tax ñu yemale ko foofu na xam ne ko 3 kilomètres aller 3 kilomètres retour euh, ci loolu tamit ci premier domaine bi toujours ñu ngi euh, gis na tamit Touba ci kanam ci toilettes yi nekk ci wetu mo ci morgue bi ngeen gis toilettes yi ni mu xawoon a doy waar tubaat ci kanam ñëw dindi ko defaraat ko def fa fukki wana ak juróom yu góor ak jigéen ak yoo xam ne tamit way laago yi bu ñëwee dana am fun jaar mën a dugg euh, yu mucc ayib ànd ko xidmatul euh, waa xidma mi nga xam ne ñoom la sëñ bi dénk jumaa ji ñu di ko saytu euh, macha allah kon day mel ni kon ci premier domaine bi bëri na ci ñaari at yi rek loo xam ne ci kanam fenn fu si nekk am na lu mu fa laaj Euh, ba pare tamit am ay perspectives yoo xam ne teg nañ ko ngir li nekk suñu kanam court terme li nga xam ne mën nañ koo def ci mu xëy na fii ak 2020 ak yi nga xam ne nag dañooy laaj euh, ingénieurs yi ak borom xam-xam yi na xam ne ay seen xel màcc na ci loolu ñu toog lëlu ci gën ci waxtaan ba def ci loo xam ne day nekk ay projet long terme yoo xam ne euh, ci loolu rek avant may jeexal foofu Euh, maa ngi la doon wax sànq de la projet naatal tubaab yi niñ ko defee euh, na xam ci benn bis ci lañ jëmbat junniy garab euh, gas junni junni junniy pax barrière six kilomètres ci benn bis kon loolu da lay wan ne la yoonu murit fan ne woon indi bi ba léegi ji nga fa suba kon buñ bëggoon a dem jëli Lac de Guiers parce que ndox mi ndoxum Touba mi ñun ci liñ nekk mooy di ci liggéey mooy nan la ñuy fexe ba def solution définitive pour ndoxum tubaa ba ndox mu neex ni ko sëriñ bi ñaane ci Matlabul Fawzayni ndox mi wala ngaan Touba bu ko defee murid yi naan ndox mu neex bu ko defee tamit loolu jàpp naa ne ay projet yoo xam ne projet long terme la yoo xam ne incha allah mooy projet yi gën a am solo ci premier domaine bi muy infrastructure environnement